mbokk yi lii nag ñoo ko gisandoo mu ngi xewee fi nga xamante ni moom mooy Maroc région de Dakhla euh, consulat bi ak i ñoñam ñooy jàmmaarloog jeunesse su sénégalais yu nekk fii ci la li ko waral mooy don alimentaire yi nga xamante ni état bu Maroc da koy joxe chaque quinzaine depuis confinement bi commencé ba tey jeunesse bi ñu ngi leen tëj seen i kër yi te boobu ba tey mënuñu fexe ba jot ci dara saa yu don yi ñëwee consulat bi moom moo koy jël ak i ñoñam def ci lu leen neex moo metti jeunesse bi ba ñu génn di xeex ak ñoom waaye lii ñaaw na trop ci état bu toll ni état bu senegaal dëkk yu bari jox ko cër lii ñaaw na trop nañu fexe nag lii jóge suñu réew ñu ñuy jiite nañ leen di seetlu consulat bu Maroc moom sénégalais yépp doyal nañ ci moom li ñu bëgg mooy mu juge fi mu juge fi te dootu fi ñëwaat